li fës ci bopp xabaar yi nag dañ koy do rek rebondissement ci mbirum nag Aziz Dabala kii di Nabou Leye nag ne nañ daal mën a tutaxaar moom Nabou Leye ci jëmi boppam rek ginnaaw bu mu defee nag weer foofa ca euh, kaso ga ginnaaw bu ñu ko tegee woon loxo rek ni ki 30 août bi ñu génn moom fecckat bi ak ñamu àndaloon nag dañ leen fëgg ab mandat de dépôt nag ginnaaw rek bu ñu gisee ne ñoom ñu dañoo laale rek ci double meurtre bi nga xamante ne rek moom moo daal di faatloo kii di Aziz Dabala ak ki nga xamante ne rek moom mooy Wally bu ñu sukkandikoo nak ci les échos mu joxe boobu boobu li xibaar ñii di avocat yu koy lelay lakk dinañu dugal lekk ab recours ñeel nag ab demande provisoire maanaam daal ab demande de liberté provisoire ngir mu mun a am nag ab bàyyi négandiku kii di Nabou Leye nag ak ñamu àndal naam sax déglooguñu nag seen dossier juge d'instruction bi nga xamante ne rek moom moo yor boobule dossier ba tey bu ñu sukkandikoo nag ci boobule journal ñoom avocat yi layal fecckat bi nag ne nañu daal du ñu xaar rek yëf yi daal di pare faw rek ñu daal ci ubbi requête bu ko defee rek ñu xool naka la ñu def ba kii di Nabou Leye nag moom mi seen client mun a am nag ab liberté ñoom nag dañoo daal di gis ne rek kii di Nabou Leye la ñu koy toppee nag laalewul ca euh, taqewul ca di xibaar bi nga xamante ne rek suñu nattangooy les échos daal dinañu koy fësal ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñooy conseil Nabou Leye nag daal dinañuy jël ab dogal nag ngir rek yàgg bi nga xamante ne rek document bi wala dossier bi sax mu ko bëgg yàgg ndax ñaari événement yi nga xamante ne moom la daal di tombé ba tey bu ñu sukkandikoo ci boobu les sources moo di tuxu bi nga xamante ne rek tuxal nañ tribunal Pikine Guédiawaye ci fi nga xamante ne rek moom mooy ca wetu BDN ak vacances yi nga xamante ne rek ñu nekk nag di liggéey ci wàllum justice ñoom ñooñu nag daal dinañu koy jël loolu moo waral rek audition bi nag jamono bi daal di yeex waaye ñoom nag ne nañ bi dañ def seen kémt lay ba yëf yi daal di gaaw ñeel boobule mbir ba tey rek pôle avocat yi nga xamante ne rek ñoom ñooy layal nag Nabou Leye ma ngay wéy rek di yokk ginnaaw nag bi ñu enregistré rek ki nga xamante ne rek moom mooy ancien ministre ba woon wala ancien premier ministre ci nguuruk ci nguuruk Abdoulaye Wade di Ngoné Ndiaye bu ñu sukkandikoo ci les échos nag mi joxe boobu les xibaar rek nit tey ci altine ji journal bi ma ngay daal di xam ne rek fi nekkoon nag premier ministre ci nguur ko Abdoulaye Wade moom ci jëmi boppam rek daal dinay ñëw yokku ci ñi nga xamante rek ñoom ñooy défendre fecckat bi di Nabou Leye ci boobu les dossier ba tey nag bu ñu sukkandikoo rek même source boobu ña ngay daal di oh. xam ne rek que ne kuréel gi nga xamante ne rek ñoom ñoo ëmb avocat yi na Nabou Leye eh, ci seen Nabou oh. Leye ci seen jëmmi bopp rek fas yéene nañoo nag dugal ab demande liberté provisoire maanaam daal bàyyi ko nëgandiko ndax nag ñoom ñoo ñu ne daal mënatuñoo xaar rek ñuy auditionné nag seen client ci ab dossier boo xamante ne rek juge d'instruction bi nga xamante ne rek moom moo ko daal di yor nag àddoogul ci mu nekk xibaar bi nga xamante ne suñu nattangooy les ko ñoom ñoo ko daal di biiral jërë ngeen jëf ci ànd bi bu leen fàttee abonné bés notification ngir mën